dañ fi ñëw pour le indi seen yobul ci mbir mi lañu fi xalaat moy fexé ba Afrique mun dundal bopam té ñu sukkandiko ci sunu am-am ak sunu mun-mun lool moñu fi indi euh, Afrique unité africaine ak Sénégal ak Banque africaine développement ñoko organiser organisé leen ñu won wax moy en premier lieu soy bugg def dara yang kay defar nit

Moy def nañu benn déclaration déclaration bi dañu wax si ñett ponk bo ñent ku nekk li ñu yi yow soo ko indé dina dimbali liñu ñu bugg def ba Afrique mu dundal boppam si mbirum lek dañ ko gaaw am bu si njëkk dañ ko commencé sur suñu bopp ñun dañuy béy dañuy sam dañuy nap dañu wax suñu joxé defar nas politique yoo xam ni dañuy garantir li ñuy béy sàmm di napp daañu ko mun jaay te dana am njëg daañu yokk suñu lox ba li ñuy béy sàmm sàmm di napp gën yokk mooy productivité bu gën gën yokk mais ñu ngi koy teg si prix parce que soo amoo prix soo demee ba nga jaay góob sa tool mun na koo jaay soo waxee naa yokk productivité bi mën na am nga am jafe-jafe bañ ko lool nak ñu ko tek nguur gi nguur yi dañ leen wax nañu garantir lool manam nañu sam ba ñu am marché si lu ñuy liggéey ñaareel bi dañu wax yaakaar nañu Afrique lu fi nekk si potentialité yalla mo ñu ko baaxee suñu ko jëfëndiko bu baax mun nañu effectivement Afrique dundal bopam si am-amam lool fan lay koy fañ koy tek en premier lieu ñu gëm ko ñun africains ñu war développer Afrique du kenen mo ñukoy défar ñaar bi dañ wax ñoo xamni ñi dañuy am bànqaas xaalis ñoo yoré copor ñom ak nguur yi ñu am parce que lu bëgg régler du du caaxaan lu ñu bëgg régler Afrique en même temps mu nek dem si jëfin bi ñu kay jëf ñu jëf ñu si si jëf bi ñu jëfee ko bo xamni suñ ko défé ku ko war yallo jot ko su ko joté bu def si lu mu si war def lol bokk no si liñu waxtaan si suñu déclaration laaj ñak ay kuril yo xamni nguur yi moy nga wax CDAO wala nga wax unité africaine wala région yi yépp wala nga wax nguur yi ñom ku si nek amna si wal no dox si walam ñaar mu am

agriculture suñu secteur mbéy sam nap si Afrique. wax ngeen aussi wàllu assurance. waaw assurance dafa bokk si jumtuwaay yo xamni ñun suñu métier dafa nek risque dafa bari risque dañuy war effectivement jox assurance walam bu doy parce que dem rek si. moo ku jiitee ba bi mu doon wax yu mel non manam ban pexe la ñuy def ba soñu ñuy légui légui banque pour nga mën comprendre ko su ma àndee ku fonctionnaire léegi-léeg dañ lay wax garantiral sa salaire man aw salaire jeex na ban pexe la ñuy def su ma taxawee banque bi ma war mun fa jël lu mu war jël li nga fa jëlee yow mais l'ol il faut nga ñu am mécanisme yoo xam assurance su mu jaf su ma amee jafe-jafe ñu bañ ko teg si man ñu teg ko si assurance bi.